barhaamu baa waraa un alifun haa mi mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy suratu Ali Imran saar wi bu fekkoon ci tartiib ni mu la. moo tegu ci suratul anfal bi anfal wàccee anaama ci tegu ibnu abbas ne na ñaari téeméeri aayaa ngi ci su fekkee ne nag alif miim mim aaya la aman na mu nekk ñaari téeméer ak benn te ci qiraatu xafsa alif laam mim aaya la xaw ma war sa na ñu koy def solo nañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam aaya ji yàlla nga ko ci moom mu jëm ci nasaraan yi dëkkoon najraan najaraan juróom benn fukki alul kitaab ñoo fa jóge woon war ba ñuy ñëw nag fukki kilifa ak ñeent ci boromi xam-xam ci nasaraan yi ñu nga ca woon mooy arab yi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci diine Isa ba ñu ñëwee ki leen jiite woon mooy seen fóode ju mag ja ba ñu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu ñu daldi ne dañoo bëgg leeralal la sun diine ba mu leer ci sa bopp nañ ci bi ne wax leen waa ji nettali am wenn yoon woo xam ne daf ne Isa yàlla la yeneen bi note loolu ne ko lu tax mu ne waaw ndax day dundal ku dee kuy dekkal ku dee ko yàlla rekk la mu waxtaan ba yàgg mu ne Isa doomu yàlla la yeneen bi ne lu tax loolu mu ne ndax dafa amul baay kon yàllaa ko jur mu waxtaan ba yàgg mu ne Isa moo ñetteel yàlla yi ndax dafa am yàlla ak jabaru yàlla ak doomu yàlla muy Isa ak Mariam ak yàlla ci boppam mu ne lu tax yett yàlla am fi ñu ne yonent bi gisoo alquran yàlla du wax dara ne moom kenn qul rek lay wax inna inna nahnu qul naa mbooloo lañ bàyyi ji la jabar jeeg doom ji ñu ne bu yàlla dafa nekkoon kenn inni lay wax waxtu wu nekk rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne waaw léegi daal danaa leen wax li yàlla wax ci alquran loo xam ne mooy dindi seen li ngeen foogoon yépp loolu nag mooy tàmbali ci bopp saar wi ba ngay dem ci juróom ñett fukkeelu aaya ci saar wi yëpp nasaraan nasaraan yi najiraan yi lay yenent bi tontu mu tàmbali ne alif laam miim allahu yàlla loolu firi woon laa ilaha de benn buur ilah wa mooy moom alxayu yàlla de mooy aji dund alqayuum mooy aji sax nazala wàccee na aleyka ci yow alkitaaba téere bil xaq ci dëgg mu musaddiqan téere bii dafay dëggal li ma bayna yadayhi la ko jiitu woon ci téere waan anzala yàlla moo wàcce woon tawraat moo wàcce linjiil min qablu njëkk téere bii hudan mu defoon ko mu dim njub li naasi ñeel nit ñi wa anzala mu wàcce alfurqaana alquran ji inna alladina naka ñi nga xam ne kafaro weddi nañu bi ayaati lay ci alquran yàlla lawum ñeel na leen aadaabun mbugal moo xam ne su fekkee ne ñëw na da nga gis ne shadidun aji metti la wallahu yàlla azizun aji not la ci kàtt na moom yàlla aziz la donti qaamin yàlla borom ak fayu la mu ne yàlla yowmal qiyaam muntaqim lay tudd ki fay fayu rek li nga defoon mu defaat la ko comme ay sifaat yu bari la kon ay mbuba yu bari lay sol yowmal qiyaam nag moom mooy tudd muntaqim albosari wax na ko nee na aman na nu yaakaar ci yërmande yàlla ah bés bi nga xamee ne moom yàlla mi karim taxalla bismi muntaqim wala tajalla bismi muntaqim aman na bu kerogee nu yaakaar yërmandem moo fay des inna laa yàlla moom laa yaxfaa du nëbbu alikum shay'un dara fi ardi ci suuf wala fi sama du caageen ci asamaan wa huwa yàlla alladi mooy buur bi nga xam ne yusawirukum moo leen di euh, nataal moo di melal fil arxaami ci biir ruux jigéen balaa doom jee juddu yàlla dina ko melal ci ruuxam bi ba mel ni mu war a mel kayfa yashaaw ni mu ko neexee nag góor lay doonam <coughs> jigéen lay doonam day guddam day gàttam day xonqam day ñuulam noonu nag loolu moom ni ko neex la duñ ko xam laa ilaha dit buur kon ilahu lu mooy kii al aziz kii day monoot ci kàttan alxakim kii moo xarale ci njëfteefam waaye nekkul koo xam ne daal dafay am yàlla yu ay ay ay yu bari wa yàlla allazi mooy buur bi nga xam ne anzala wàccee na aleyka ci wal kitaaba téere ba minu nekk na ci téere bi aayatun ay aaya muhkamaatun yu ñu àttee rek na yooyu nag umul kitaab ñoo tax téere bee jóg ay nga xam ne boo ko jàngee dégg ko di ko àttee yooyu ñooy umul kitaab ñoo tax téere bi jóg waaye wa xara am na yeneen aaya yoo xam ne mutashabihaat dafa lënt lënt googu mu lënt nag dafa bëgg wane ne ñépp mënuñ koo xam yooyu lënt nag boo ko soxlaa da ngay dem ci ña sax ci xam-xam waaye bul ñëw rek ci yu lënt yooyu comme yooyu na nasaraan yi waxoon naan lu yàlla lu tax mu wax nangam lu tax mu wax nangam mutashabihaat yi alxajaazi nee na bokk na ci bokk na ci yi ñuy tuddee mutashabihan ñu ne dafa lënt ba tax ñu def yetti yàlla ak yaari yàlla benn mooy li yàlla ne wa kalimatuhu alqaaha ila maryam wa ruuxun minhu ñu ne ndem Isa ab baatu yàlla la mooy baatu yàlla kooku ci yàlla la jóge kon moo ko jur kooku ñu ngi ko tuddee mutashabihan waaye ñi sax ci xam-xam ñoom dañuy wax ne loolu bokkut loolu kay lëntut ku ne xam na ko lu tax ku ne xam na ko ab jaam la boo xam ne yàlla moo ko xéewal ku jigéen ku amul jëkkër in huwa ila abdun ana am na aley bu fekkee ne ñàkk baay gi moo tax mu doon yàlla kon aadama mooy gën a nekk yàlla amul ndey amul baay far te gannaaw aadama it am na ku gën a yéemu isa moo di aw hawa nit ko amul ndey gën a yéemu moos te hawa ci aadama rek la génne القران تنت تي نيكون لولو تو تخالنت ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب بوك نتي ني تودي المتشابهات في سوره النساء وفي يالا دي واخنان واخنا كو ليغي وكلمه القائله مريم اك في يالا دي واختي تي عيسى mutawaffiika wa fii raaji'uka ja kooku ñu ne mutashabihaat la ndax yàlla moo ne Isa dinaa la faat yëkkati la nga jëm si ci man ñu ne kon nag nga jëm si ci man mooy mu fekk yàlla ca asamaan comme ñoom asamaan ci la yàllay nekk loolu moom xam nga warul nekk ci mutashabihaat ndax ku gën a doye di xalaat mën naa xam ne yàlla nekkul ci asamaan dong kon mutawaffika wa rafi'uka ilayya munuñ ci degge ne isa ci asman ma ngi nga jëm si ci man docteur Najaar neena ñi wax ne isa ci asamaan si da fay dikk dana wat ñew filé mu ne ana fan la leen yalla wax ne isa ngi ci asman bu fekke rafi'uka ilayya la ndax ilayya man nañ ci degge ben kalimatu sama ma ngi fi mu ne do gis ci alquran mukk rafi'uka ila sama nekku ci bu fekkee baatab yëkkati bi rek moo leen lëntal mu ne kon du moom rek idrissa yàlla wax na ko loolu wa rafanahu makanan aliyan ñu ne kon loolu du nekk mutashabi nasaraan yi ne ko waaye li nga wax li ñuy wax ci sal quran it ne arrahmanu ala al arshi istawa ñu loolu tam mutashabihaat la yàlla nga ca ko arash fan kookit boo xamee yàlla du nekk mutashaabi ndax arash mooy lan arshullahi maxluqaatu mbindeef yépp ñooy arash yàllaa ngi ci seen kaw du kaw ak makkaan waaye kaw ak noteel la ndax yàlla moo far kaw kaw te fi yàlla nekk kaw du fa nekk kaw suuf du fa nekk suuf ndax suuf ak kaw yépp dafay am lu ko waral mooy day am foy jublu am fo gëm tek ko am fo tek souf waye bu ko ak suuf amul yàlla du far kenn ko kenn du ko far ko neexu la xam wante lol la kon arshu llahi makhluqatu istawa alayhi ay ghalabuhunna ñoo indi benen mutashabihat ñu ne llahi fawqa aydihim loxal yalla ngi ci sen kaw ñu ne yàlla fay am loxo ñu ne déedéet yaddullahi laysa maanaahu al yaddu yaddullahi quwatuhu kàttanu yàlla ma ngi ci seen kaw loxo yooyu ak yu mel noonu mooy yi ñuy tuddee naan ay mutashabihaat la alquran nag ne wa uxara am na ci yenn mutashabihaat yu ñu yoo xam ne dañ kaa lëntal fa ama alladina ndaal ñi nga xam ne fi qulubihim nekk na ci seen xol ya zeyqun ak jeng ñooñu fa yattabiuuna ñooy topp maata shaaba lu lënt minu ci aaya yi naan lu tax mu ne nangam bëgg cee discuter ibtira al fitnati ngir bëgg fitna luy fitna mooy ki si xam-xamam bariwul nga fexe ba génne ko ci la mu gëmoon ndax indi fitna wabtiraa taawilihi ak jéem koo taawil jéem koo tekkee nu bokkul ak ni mu amee waaye wa maa yaalamu xamut taawilahu prim alquran ji ilallahu lu ma yàlla warasiquun ak ña sax rek fi lelmi ci xam am na ñuy defee istidlal naan alquran kenn mënu ko firi ndax yàlla moo ne maa yaalamu taawilahu illa allah wante nañu wey warasiquuna fil ilm ñi sax ci xam danañu ko xam abdullah ibnu abbas ne man de bokk naa ci ñi ko xam ñoom yaquluuna danañu wax ci liñ mën a firi ni aman naa gëm nañ bi ci loolu liñ mënta firi ñu gëm rek ne kullun képp ci lii ak lee min indi rabbina bàyyeekoo na ci suñu borom waaye wa maa yadakkaru du mën a waaru ci lii ila ulul albaab lu may borom xel yu sell kon nag ku yebu rek jéem ñaan yàlla def la ak sell mu ne kon rabbana yàlla laa tuzighnaa yàlla bul jàngal ñu kon bul jàngal quluubanaa suñuy xol baada iz hadaytanaa ganaaw bi ñuy jubalee wahab yan na nga may la naa ñeel min ladunka fa yow rahmatan yërmande innaka yow anta yow alwahaab yaay mayeewakoon rabbana yàlla innaka yow day jaamiu naas yaa nar a boole nit ñi li yow min ci bés boo xam ne laa rey ba dee sikk fii ci dikkam inna laa yàlla moom laa yuxliful miaada du faussé benn rendez-vous bés bu ñëwee mu def ko euh, mu dellusi ba tey ci koo xam ne alal moo la wor wala ay doom wala man-man ab àddina loolu lay bëgg a wax ndax itam ndem nettali na melokaan yi waroon ci borom bi tabaraka wa taala ak alquran ni mu mel mu indi it melokaanu ulamaau rasixuun fi l ilmi kon léegi dafay biral nag yéeféer yi nga xam ne nag ñoo waru ci alal doom ba weddi alquran loolu mooy ba tey nasaraan najraan yi ak yahud ak bépp kaafir Saïd ibnu Jubayr ak Ikrimata ibnu ak euh, ak Ikrimata solo nañ déggee ci Abdullah ibnu Abbas radiallahu an muy wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu dajee Quraysh ci xareb Badar duma leen duma yu metti mu dellu Medina dal di dajale yahud yi dëkkoon ci Medina ci marché banu Qaynuqaa ne leen gis ngeen ni ma def Quraysh su ngeen wëttandiku wut noonu laa leen di def yow ji ne ko ah yow waru nga de jum nga bu baax gis nga ñi nga xamu ñu xare arab lañ dara lañ xamut wallahi bes bo dajek ñun yahut nga xam ne ñun ñoo xam mi mbir legi nak yalla dal di lenne, alquran ji nek di wax yonent bi nek wax len ne jum ngeen yena jum dana dajek yent duma len ngeen de sa tuxlabuuna wa tuxcharuun kay moo tax yàlla ne inna alladina naka ñi nga xam ne kafaro weddi nañ lan tuxniya du jëriñ anhum ci ñoom am amwaaluhum seen alal yi wala awlaadum du càggeen seen i doom du jariñ min lay ceela cheyen tus ulaayika ñooñ hum ñoom waquudu du naari ñooy matum safara kaddaa bi ali firaw ni ki baaxum niti firaw nay rek wala dinag ñi nga xam ne min qablim ñu leen jiituwoon ci weddi gi ñoom ñëpp kaddabu weddi woon nañu bi naa ci suñu kawtéye muy alquran fa axadahum jàppaleen laahu yàlla baatub jàpp ci alquran dañ la koy firil fii fuñ ne jàpp te jàpp gi jóge ci yàlla mbugal lay tekki jàpp yàlla moom sempalut buñ ne jàpp na ko yàlla rek mbugal lay tekki <laughs> axadahum allahu nika nakaala toujours bi dunoo bi ngir seeni i bakkaar ndax wallahu yàlla shadidul iqaab ku tar ji mbugal la gis nga ni yërmande ji toll noona la mbugal ma itam toll qul waxal lillazina ñeel yahud yi nga xam ne kafaru weddi nañ la nang leen wax nag ne sa tuxlabuuna xalsef naa not leen wa tuxcharuuna ngeen dee ñu fanga leen ilaa jahannama ngeen jëm safara wa bii sa bon na almihaadul alba ndax xat xat kaana nekk na lakum ñee leen ayatun kawtéef fi féete ni ci ñaari kuré iltaqata daje nañu fiyatun benn kuré ba lu ma ngay xeex fi sabilaay ci yoonu yàlla ooxuraate benn bi kaafiratun aji weddi la mooy xare badar ñaari kuré daje nañu fa bii di xeex ngir yàlla bii weddi te yaraw nahum ñu ngi leen gis mees lay ñoo ñuy seen ñaari kem ëpp na sax ñaari kem matoon na ñetti kem rayal ay ni waaye loolu ji ak bët rek la woon ndax dañ leen doon seen wallahu yàlla yu ayidu mooy dëgëral bi nasri ci ndimbalam man yashaa ku ko neex inna fi dalik aji nekk la ci mbooloo su tuuti dajeg mbooloo mu rëy tedduma leen loolu la ibratun xalaata ngoog liwlul absaar ñeel ñi nga xam ne am nañuy xel doomu aadama ku bëgg ay bànneex la ana lan mooy bànneexu àddina te doomu bëgg ko doomu aadama li mu gën a bëgg ci àddina mooy jigéen li ci topp mooy ay doom li ci topp mooy alal li ci topp mooy lu muy war li ci topp mooy am mbay yii mooy yitteel doomu aadama loolu nag du tere war na am xel ba di ci def santaane yàlla yi yii daal mën naa dox diggante nit ak borom moo tax buur ne zuyi na rafetaleef na li naa si ñeel nit ñi xubbu shahawaati sopp ay bànneex sama borom nee na zuyi na lu tax rek mu ne na kon dafay mel ni mbir ma neexut dañ la ko kulóoral rek waaye neexut moo tax mu ne zuyi na rafetaleef naka rek ci bitti lu tax alal neexut xam nga ne ki la ëppale moo la gën a sonn léeg-léeg sax yow mi yorut lu am solo mu ñe ndax yaa ko ëpp noflaay kon nag mbir ma dañ koo rafetal ci bëti ki ki ki ko amagul rek mu ngi mel ni ak wér arab yi dañuy wax neen asihatu taajun ala ruusi al asiha la yaraha ila al marda ak wér gis nga ni mu neexee waaye mbaxana la ñi wér ñi wér rek ñoo sol mbaxana ma ñu feebar rek a koy gis kon dañ ko rafetal ci kaw rek mu ne lan mooy shahawaat mu indi minam bayaan mu ne mine nisaa ca laa moom ay jigéen la wal bana bani na ki doom wal qanaatiri l muqantarati ak alal yu ñu boolee mine dahabi ci laa la moom wurus la lu fiddati xaalis wal xaylee ki fas al musawamati yoo xam ne fas yoo xam ne yi ñu xamal la lan mooy musawama mooy fas woo xam ne dañ ko wutal ab udd rek kenn du ko yeew muy naaru góor ñu bàyyi ko fa kenn du ko yeew rek dal di ko ub ci biir wala na ameeg juru kër gi loola nit bëgg wala xarseeka mbay zalika yii ma tudd alal mënatul mënatul nekk leneen lu mooy ñoom mataaul xayaati dunia mooy xéewalug àddina rek de fii lay yem waaye boo xamoon ne wallaahu yàlla moom indahu nekk na fa moom xusnal maabi rafet ak delluwaay yi kon loola moo lay gën a yitteel ci lii léegi nag lan moo gën ci àddina àddina ak li ci biiram ana lan moo ko gën li ko gën mooy aw ay du nekk ay bu fekkee dee dem aljana ci topp waaye yiw du nekk yiw su fekkee dee dem safara moo moo cay topp kon nag ana lan moo gën àddina te gë ak li ci biiram yépp mooy fexe ba booy dajeek yàlla nga am njëggalam mu dugal la aljanna te loola nag ci bari jéggalu ak topp yeñ lay digal ci la ko doomu aadama di amee yonent bi alayhi salaatu wasalaam buxaari indi na ko nee na sangub istixfaar yi istixfaar bi nga xam ne moo gën mooy boo demee ci buxaari yi da nga ko fekk allahuma anta rabbi laa ilaha illa ant xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika ma stataatu audu bika min sharri ma sanaatu abuu laka bi nicmatika alayya wa abuu bi danbi faxfir lii fa innahu la yaxfiru dunub illa ant mu ne kon istixfaar dana tax doomu aadama yàlla di ko baal min annisaai walbanin walqanatir almuqantarat loolu mooy min zalikum ma wax leen lu gën loolu lillazina mooy la ñeel ñi nga xam ne ittaqaw ragal nañu seen borom indra bihim fa seen borom loola mooy lan jannaatun aljanna yoo xam ne tajri dina daw min taxtiyaa ci suufam alanhaaru yali yéent xaalidi nañu di way beelu fiyaa foofale wa azwaajun ak i soxna mutaharatun ñu ñu laabal ci gis deret wa ridwaanun ak ngërëm nag min laay ci yàlla والله يلا بسرنا جي قمل بالعباد جي جامية لجينا موي نيغا قمنا جي أدنا يقولون نيغا سخوة دي وحنا ربنا يلا إننا نيندي آمنا قمنا ففريا نيغا بالنا نيلن ذنوبنا سني بكار وقتنا يا نيغا مسلم عذاب نار مغلم سفر الصابرين موي ني مون والصا والصادقين ني دغ والقانتين ني ترخلو يلا والمنفقين ak ñi dund leen seen alal wala mustaghfirin ak ñi yewu di jéggalu mu bàyyi ñooñu mu ñëw ci di seedal yàlla ak waxdaaniya ak di wane ne diine daal ci yàlla lislaam dong la yàlla nag joxati na boroom xam-xam yi beneen privilège muy beneen beneen gëneel mooy bi yàlla amee lu ko yitteel te li ko yitteel mooy ñëpp a nangu ak bennam ñépp nangu wax daaniyam lu ko yitteel la mu ne nag pour loolu damay jël ñii def leen seede ne en tout cas ñii day seede nañ ne man yàlla kenn la ana ñan la jël moom yàlla moo njëkk a boppam ne moom kenn la mu ne malaaka yi itam jàpp naa leen seede ak borom xam-xam yi moo tax mu ne shahidallahu seede na yàlla ne annahu luy mbir laa ilaha déet mi ni buur ilaa huwa lu muy moom wal malaayikatu ak malaaka yi wa ulul ilmi ak borom xam-xam yi qaayiman ñi taxaw bil qist ci maandu laa ilaha déet benn buur ilaa huwa lu muy moom al azizu yàlla moo noot ci kàttanam alxakimu moo xarale ci njëfteefam inna diina naka diine ju ñu gërëm ind laay fa yàlla al islaamu moo di lislaam wa maxtalafa wuute wut allazina ñu nga xam ne ootoo joxeef na leen alkitaab ak téere illa min baadi ma jaahum lu may gannaaw bu dikkalee leen ali ilmu xam-xam baxyan ngir réer baynahum seen diggante wa man yakfur ku weddina bi ayaati laay ci alquran yàlla fa inna laa nak yàlla sariul xisaab aji gaaw ci nu muy xisaabee la fa in xaajuuka su fekkee dañoo ñëw di dàgg seen teg yow faqul waxal ne aslamtu man dey jébbal naa wajhiya sama kanam sama anam lillahi mu ñeel yàlla wa man ittabaani ku ma toppit na jébbal boppam yàlla mu ne loolu laa wax waqul waxal li lésina ñeel ñi nga xam ne oto joxef na leen alkitaaba téere mooy na najiraan yooyu wal ummi yii na ak ñi nga xam ne mënuñu sax a bind ñoom far nekk ay ummi yoon na nga leen na nga leen laaj ne a aslamtum ndax jébbal ngeen seen bopp yàlla nga déglu leen fa in aslamu buñ jébbalee seen bopp yàlla faqad ittadaw jub nañ fa in tawalaw buñ dëddoo lànk nag wala ñu yóbbu ko feneen ah yow nag wàcc nga fay na ma aleyka naka waral na yow albalaaxu jottali rek wallaahu yàlla moom basur naa ji xam la bil ibaadi ci ay jaamam euh, koo xam ne dangaa rey xam-xam texe tere xam-xam mu jàll wala nga rey ak nubuwa fexe ba ak yonent du jàll kooku lan moo di payam buur ne yi ne lëdina naka ñi nga xam ne yeeg furoona ñooy weddi bi ayaati laay ci alquran yàlla wa yaqtuluuna ñuy rey annabiina yonent yi bi xeyri xaqin ci lu dul dëgg wa yaqtuluuna ñuy rey allazina ñi nga xam ne yamuruuna ñooy digle bil qist jig maando mina ci nit ñi ñooña fa bashirhum xamal leen bi aadaabin ci mbugal alim daa daal ji baatu bashara bég lay firi waaye bu jëmee ci aadaab xamle rek lay tekki yàlla nekkoo ko su ma la mayee doom jooju buy judd rek ay tàmbali di wax moom dootul nekk kii man comme moom amul bàyyi léegi lañ ko ëmb mu judd kon bu boo mën a wax ndax boo demee mag la xam naa ne boo demee bu yàgg la fi nekkoon loolu aarifoon yi xam nañ ko xam nga liir bu ne mag la liir bu ne mag la dafa feeñ tey rek mu ngi fi woon Isaa nag dafa judd rek moom it di wax foofu nag diggante Mariama ak Jibril am na ay wax ay kàddu yu ñu ba maryaama ne ko yàlla man nan lay amee doom te man góor mësuma laal yàlla ne pour mu jox ko conviction boppam yàlla ne ko noonu la yàlla di bindee lu ko neex xamoo ne yàlla bu na naree amal mbir da koy wax amal rek mu am te sa doom ji duma yem foofu doom ji dana juddu <clears throat> bu juddoo dana wax danaa ko jox ab téere tawreet leen jil dana ko xam yonent la yonent bani Israel lay nekk te ku bëri kéemtaan lay doon loolu taraf la ci qissatu isa mocc baa ngay ñëw ci suratu mariam incha allah buur ne is qaalat jàngatal yow yonent bi na nga nettalil sa nit ñi waxtu way wax almalaaikatu malaaka ya xajaazin ne malaak malaaka yi jibril rek la lañ ci namm ne ko inna laa yàlla de yu bashiru kii mu ngi lay bégal yow ndaw si bi kalimatin ci baat minhu bu tukkee ci yàlla baat bu tukkee ci yàlla loola nekkul kéemtaan ba tax mu nekk yàlla xamoo ne nit ku nekk baat bu tukkee ci yàlla la ban baat baat bi yàlla wax ne kun mu dal di nekk nit ku nekk baatu yàlla boobu moo la amal kon Eesa nekk gi nekk baatu yàlla du ko tax a nekk yàlla ndax ñépp baatu yàlla lañu mooy kay kay masaha kay raay muy wér waaye turam dëgg mooy isam nu maryam wa jihan ku ñu dara jàll nag fi duniyaa ci àddina wala axira teg alaxira wa mu al muqarrabin bokk na ci ñi jegeel yàlla itam na ji doom baax na wa mu day wax ak naa si nit ña fil mahdi ca laltaay ya wa kaalan mbir mu mel ni mbañam rus day mel ni mag mu dem ba denc jabar nag li mañ way setee nan lay waxee ak nit ñi fekk ñu ngi ko laxal ca sagar wa min asaalihina bokk na ci ñuy yiw ulama siire ñoom xam nga dañu bari ay qissa ay waxtaan ñoom dañuy wax naan Isa dafa juddu rekk ñu toog ba mu war a dem daara ñu jox ko sëriñ sëriñ bi ne ko nel baa mu ne baa sëriñ bi ne ko nel siin mu ne àddee ah, sëriñ baa lu muy tekki balaa ñoo dem ci siin ah a doom man de dañ ne ma baa rek ma ne baa xaw ma lu may tekki mu ne ko baa nag mooy baa ullahi mu ne waaw kon nag siin mu ne siin ne miim mu ne déet balaa miim kay luy siin mu ne doom ñun siin kat siin lañ ci xam mu ne siin mooy sanaawullahi ila axiri loolu ulamaaw séré ñoo koy nettali loolu yëpp day wone kéemaan yu Isa amoon na ko ila axiri qaalat wax mariama nag ne yàlla rabbi yàlla ana yakunu lii fan lay tukkee ñeel ma wala dun doom walla wala yem sas nite laaluma basharun góor loolu day man la nit ku toog toog rek di am doom te yow góor mësul laal laal loolu moos xar baax la nar a doon xaala wax yàlla ne ko yow ndaw si kazaliki noonu ñu la ko waxee allahu yàlla yaxluq lay bind maa yashaaw lu ko neex xamoo isa qada bu namee dogal amran mbir fa innama yaquul naka day wax lahoo ci mbir ma ne kun amal rek fa yakun mu dal di am kon baatub yàlla baa ngo kun fa yakun kalimatu kun looloy kalimatun minhu wa yuallimuhu doom ji bu ñëwee dana xamal ko yàlla alkitaaba téere wal xikmata xam-xam buy jëriñ ak tawraat ak linjiil wa rasulan dana nekk ku ñu yónni ila doom ji am na màgg na yónni nañ ko ci bani israil eesa ngi nii di waar bani israil mu ne leen inni man dey xat jitukum dikkee naa leen bi ayatin ci kaw téef min rabbikum bàyyi ko ci seen borom waa nii man axluqu damay bind lakum ñeele mi netti ni ci ban bi ka hay ati tayri lu mel ni ki melokaanu picc faan fuqu ma wal fii ci ban bi ma tabax fa yakkoon mu nekk tayran di aji naaw wala tairan dim picc bi idnillahi ci turu ak ndigalam wa ubrihu mën naa weral al akmaha ku juddu rek selmaxa wala abrasa ak ku amee sitti wa xiid naa dundal al mawta way deeye bisimilahi waaye ci ndigalal yàlla de wa unabbiukum mën naa leen a wax bi ma takuna li ngeen di lekk yépp li ma ci xam wa ma tadaxiruuna ak li ngeen di denc fi buyutikum seen néeg ya inna fi zalika nakaa ji nekk li ci loolu ci liir bu mel mel noonu xam loolu laayatin kaw téefan ci lakum ñeel leen in kuntum dem nekk ngeen mu'minee di way gëm yàlla yàlla ne yonent bi jàngatalal sa nit ñi xissab Isa ni mu juddoo woon noonu wa musaddiqan mu yaa ji dëggal li ma bay na yedday ja la nekk ci sama kanam mi ne tawraat tawraat bi ma jiitu woon téere bi ma indi daf koy daf koy eh, daf koy dëggal wali uhilla damaa ñëw it bëgg a daganal lakum ñeel leen baada allazi leen na ci la nga xam ne ma xaraamale foon na ko aleykum ci yéen yu bari yi ñu xaraamaloon ci yéen bani israil man isa bu ma ñëwee sama sharia da ci am yu muy woyafal wa jiitukum dikkee naa leen bi ayatin ci kaw téef min rabbikum bàyyi ko seen borom fa fattaqullaa ragal leen yàlla kon wa atiuni ngeen topp ma inna laa yàlla rabbi mooy sama borom wa rabbukum yéen mooy seen borom kon faabuduhu jaamu leen ko haada jaamu yàlla te bàyyi lu moom dey siraatun yoon la mustaqimun wu ne coow ku ne isa wàcc nag ñooñu isa ngeeg nitam ña mu ngi nekk ak yi lu tax ñu tuddee leen dañu daan sal yu weex tàll set wecc takk seeni ndigg duñu denc jabar duñu sëmp kër topp isa rek di jaamu yàlla isa dencul ñoom dencuñu xam nga charia islamiya Islam dafa nek diine ju gën ju gën du jéggi dayo ba mel ni ñee waaye du jéggi dayo it ba mel ni ñi du jéggi dayo ba mel ni yahuud nga xam ne alal ak jigéen amul fu muy yem ba nit ki dencantee ki ndeyam ak ki tàntam ak ki doomam ak ki ak ki magam lislaam du nangu loola waaye itam l'islam du bëgg ak rahbaniya nga xam ne ku góor ki day takkaayu na du denc fawwa ba mel ni nasaraan yi itam lislaam di nekk ci digg bi lay nekk moom léegi nag isa fa lama axassa ba yégee isa minhum ca ña ànd moom alkufra weddi mu xam ne gaañi kat euh, gëmatuñu ko qaala wax alxawaariyuun way weex ya ne nax na ñun buñ la weddee it ansaarulaay noo dimbale yàlla ci topp ay ndigalam aman naa gëm nañ billahi wa shahad na nga ne bi an naa ñun muslimoon way omatu lañu naa yàlla aman naa gëm nañ bi ma anzalta ci li nga wàccee wa tabaana topp nañu arasula isa faktum naa yàlla na nga binde ñu ca sa téere ba maa shahidin ñu ànd ak ñi nga xam ne ñooy teewe loolu wala ñoo sey ndeke wax jooju yëpp bañ koy wax it taxul kat ñu gëm isa ndeke dañuy fen wa makaro ñi ngay fexe ca suuf pexem nu ñu reyee isa wa makarallahu dogal yàlla xam nga yàlla moom du fexe kon makru foofu dogal lay teg wallahu yàlla xayrul maakirin moo dàq dogal is qaala ba wax laahu yàlla ne yaa isa léegi day jotal nga sab téere jotal nga sab yonint sab dig jeex na sa mbir jeex na indi man day mutawaffika aji faat laa la wa rafiuka aji yëkkati laa la ilayya nga jëm si ci man yàlla wa mutaxiruka aji laabal laa la min alladina ci ñi nga xam ne kafaru weddi nañ wa jaacilu alladina eh, tabauka danaa def ñi ñi nga xam ne ñoo la topp fawqa alladina ñooy nekk ci kaw ñi nga xam ne kafaru weddi nañ ila yawm alqiyaama ki la topp daal mooy ki topp diine moom laay def mu gëm gën ki weddi ba yawm alqiyaama te dinaa leen attee wax ji yàlla wax eesa ne dama lay rey yëkkati la nga jëm ci man moo tax ñu bari tegtaloo ne kon Isa ab digam jeexoon na ba dee ndax yàlla moo ko wax wax ne Isa dee du tekki ne danga wax ne yahud yi rey nañ ko ndax bi yàlla wax ne wa ma qatluhu ma salabuhu yahud yi reyuñu ko daajuñu ko tekkiwu ne deewut daf na ñii reyuñu ko rek ndax wax na inni mutawaffika wa rafiuka ilayya ulamaau tafsir am nañ ci ay wax yu bari min bayna muayyidin wa muaaridin ñi gëm nañ deew isa ñi weddi nañ ko xadis yi ñëw def ci taarud xadis bi ñëw daal dina yushiku an tanzila ibnu mariam isa dina xaw a wàcc ci yéen xaw a wàcc nag nekkul taabir boo xam ne nit ñi dañ cey daal di dogu loolu la noonu la ko buxaari moom indee waaye yitteeluñu ñun daal li ñu yitteel mooy bu isa wàccoon te it te jàpp ci lii wàccu gi isa du jeexital ci suñu nekkin wi dara ndax bu ndax comme ulama yëpp dañ ne bu wàccoon it ci lislaam bii lay nekk di attewoo téere bii kon wàccu gi isa ñun soxalunu ndax du wàññi du wàññi ci li doon def dara su wàcculoon itam noo ci lii su ma marjiukum seen delluwaay ilay jëm na ci man yàlla faax ku mu dana na baynakum seen diggante فيما كنتم جلنا نكون تختلفون دي وتي في تيك ديفا فام الذين دال نيغا خامني كفروا ود ناي يوم القيامه فوعذبهم دنا لين بوغل عذابا بوغل مو خامني شديد نا جي متي في الدنيا والاخره وما لهم دي دنيا لين من ناصرين ني لين دي تري وام الذين دال نيغا خامني امنو گم ناي وعملوا تي ني جيف الصالحات فرتي نافلي ньоñ nak fa yuwaffihim dana matal len sen borom ujurum sen sen biol wallahu yalla mom la yuhibbu du fay azalimina way tooñ ya dalika loolu noo koy jàngatey alayka ci yow min al ayaati ci alquran ji nga xam ko wa zikri ak ak mooy alquran alxakim bu dee nga xam ne lii moo xewoon ca mbiru isa bayeegul isa ma ngay tontu nasaraan najiraan ya mu ne leen inna masala isa naka misaalam isa inda fa yàlla ka masali aadam mu ngi ni aadama rek xalaqahu bind na ko yàlla من ترابن كي سوف سما قال مو واخ لا ونيل كو نيكون عمل فيكون مو دالدي نيك الحق لولوي دغ من ربك مو بايكو سي سن با سن بروم فلا تكون بول نيك من الممترين كي نيسك فمن حاجك كيب كو خامني داغي سنت ناك يو فيه تي جود عيسى من بعد ما جاك غناو بودي كليل من العلم تي قم قم فقل واخال ني تعالو كايلن واخنا لين عيسى دو يالا دو دومو يالا يالا كو بند نيم بندي ادم لانك kon nag ñëw leen nu géñ man yonent bi dinaa géñ ne Isa jaamu yàlla yàllaa ko bind yéen na kenn ci yéen géñ ne yàlla rek ñu seet fan la nuy mujj yàlla te it bu nuy géej nag nan woo sunuy jabar woo sunuy doom teew ak sunu sunu bakkan ak sunu xol te géej ñu seet kon mel na ni e, dàgg sant bi tàng na ba géeñoo ci des yonent bi ne kon yàlla ne ko bu ñuy dàgg sant yow fukkul waxal rek ne taalaw kaay leen nad'u nu woo am naanaa sunuy doom wa am naakum yeneen ngeen woo seeni i doom wa nisaanaa sunuy jabar wa nisaakum ak seen i jabar wa anfusanaa ñu teew ak suñu bopp wa anfusakum ngeen teew ak seen bopp su ma nabtahil nu géñ buñ géñee nag ñu saaga nag fa najaalu ñu def laanatallahi rëbbum yàlla alal kaasibina nekk ci ku fen mën ak yéen ñëw leen ñu def loolu gaañ ragal nañ loolu yàlla nekkoon nag inna haada naka wax ji la huwa moom القصص موي نتلي الحق وي دغ وما من اله كن امود بن يالا الا الله لما يال وين لا نك يالا هو موم العزيز موي جنا تي كاتنم الحكيم موي جي قارلا تي اي نجفتيفم فاين تولو سن لا جوخي غناو فاين لا يالا موم علي من اجي قمل بالمفسدين تي وي يقو بايغول آه، كلمه التوحيد دا خمغني fode yahud yeeg fode nasaraan yi ñoom it daanaka ni ñun dañ daan jël seen i teg rek ku xamul rek ñu gonk la noonu lañ daan def léegi nag yahud yi ne Ibrahima yahud la nasaraan yi ne Ibrahima nasaraan la ñu ne nañ dem ci yenent bi mu àtt ñu ci mbiram Ibrahima ba ñu nak nag yonent bi ne leen ibrahima de du du nasran du ndax li ñuy tuddé ak yahudiya ma ngi ñëw gënaaw ibrahim li ñuy tuddé nasaraan yi it ngi ñëw gënaaw ibrahim kon ibrahima du lenn na ca loola moo tax alquran ne qul wa hal kitab ta'alu ila kalimatin nanu gëm gëm go, xam abbad la rek sawaayin bu yem bayna naa ci suñu diggante mooy al imaanu billah laa yahudiya wala nasraniya mooy yem baynakum sin bayna naa suñu diggante wa baynakum ak yéen loola lan la allah naabuda bu nu jaamu ilallah lu muy yàlla wala nushrik bun bokkaale bi yàlla cheyan dara walaa yettaxidu bu jàpp baadunaa leen na ci ñun baadan ñenn arbaaban ñu di yàlla bu kenn falu yàlla ci kaw ñi ca des ñun ñëpp na nekk jaam min dooni laay ñu di fa teg yàlla loolu mooy ñun ñëpp ñu yem nekk jaam dem jaamu ji yàlla soo ko waxee gaa ñu ne lii mënul amkat kat ah, moom kay nag fokk am ñu ne ca kaw ñi ne ca suuf mu ne fayin tawalaw bu ñu dëddoo waqooloo wax leen ne ishado sedd leen ne bi annaa ñun day ñun muslimuuna way omatu lañ jëm ci yàlla yàlla kitaab li ma lu tax yéen toxaajoon na ngeen di werante fi Ibrahim naan yahuud la ak nasaraan te yéen xam ngeen ne li indi yahuud mooy tawraat li indi nasaraan moo di linjiil te maa unzilat wàcceefu tawraat ak linjiil illaa min baadihi lu may gannaaw Ibrahima afalaa taaqiloon xanaa amu leen xel waaye loolu sax garaawul ndax werante ci dara ci loo xam loo xam dara loolu moo tax li garaaw kay mooy ngeen werante ci lu ngeen xamul tus mune ha antum yéen awlay ñi ha jëjtum werante ngeen fi ma ci loo xam ne lakum ñeen la leen bii ci loolu ilmun xam-xam muy ibrahim ndax jàng ngeen ko seen téere loola kay moom si ka nekku ci ndax yéen a ngi werante ci lu ngeen xam waaye li ma jaaxal kay mooy werante gi ngeen werante ci lu ngeen xamut ba wax ne yàlla am na doom wala ay saa doomu yàlla la moo tax yàlla ne ci mbiru ibrahima werante ngeen ci mbir moo xam ne am ngeen ca xam-xam falima lu tax nag kon tuxaajoona ngeen di werante fii maa ci loo xam ne laysa lakum ñeelu leen bii ci loolu ilmun benn xam-xam walaaw yàlla yaalamu xam na wa antum yàlla taalamuuna xamu leen mu door a tontu nag ndax lee yépp da leen ko yeddee xuppee leen ko ndax ibrahima yahud ak nasaraan la ma ngi ciy door a tontu maa kaana nekkul nag ibrahima yahud yéen di yahud wala nasaraan yéen nekkul nasaraan walakin waaye kaana nekk na xanifan daa ji jëng wala lépp lu jëng musliman daa ji jébal boppam yàlla wa ma kaana nekkul mi la mushrikina ci ñi bokkale ñu ne waaye nag su loolu amee itam nag nasaraan nasaraani najiraan yi ñu ne ko bu loolu amee it ñun ñoo gën a ay ibrahim ndax ibrahima comme xam nañ ne moo jur isaaqa te isaaqa jur yaquba te yaquba mooy bani israil te moo jur yahuda bi tax yahudiya am kon ñun ñoo ci gën a ell maanaam ñoo ko gën a jege daal ñoo la ci gën alquran ne déedéet inna awla naasi gën a ay ci nit ñi bi ibrahima kay la lazina tabauhu ña ko toppoon ci jamonoom waaye buy léegi wa haza ak yenente bi dib sëtam wala si nag ñi nga xam ne amanoo gëm nañ mooy at julit ñi topp muhammad ñii ñoo gën a ay ci ibrahim ndax ñoo nekk ci li mu nekkoon wallahu yàlla nag walil muminin mooy méngoo mbiram julit mu ñëw ci mawqifu ahlil kitab nan lañu ñu gisee yonent bi te loola moo di ne Muaz ibnu Jabal ak Xusayfat al Yamani ibn al Yamani Ammar ibnu Yasir maanaam daal duafaawul muminin Suhaybu Xabaab Bilaal ak yooyu duafaawul muminin muy jullit ñi ne woon doole yahud yi dañ leen a woone kaay leen ci suñu diine jile su ngeen ci duggee jox leen i jabar wuta leen i kër jox leen lu nekk dangeen ko am ñu bañ ñu ne nag su ngeen ñëwut ci suñ diine ji nag ni ñuy def mooy danañ leen mbugal ba da ngeen weddi Muhammad ñëw ci suñ diine kon nag ndem bañ ngeen nax léegi nag duma rekk ci des yahud yi ñëw ne léegi comme li nga xam ne yëfar yàgg na kaa def ñu ne ñun daal ni ñuy yàqalee Muhammad diine moo di ne dañuy sàkk mbooloo ñu dem tuub ci moom dugg ci diineem ci suba si buy wax nu toog naan est-ce suñ toogee ba ngoon ñu ne ah ndeke noonu la ñun murtad na su ko defee ñëpp découragé topp ñu moo tax buur ne waddat mébét na al eh, taifa kuré min alil kitaab ndax añaan law yudilluunakum bu ñu leen mënoon a réeral waaye wa maa yudilluun duñu réeral illa anfusum lu mooy seen bopp wa maa yashcuruun te yëguñu ko yaa alil kitaab li ma tax takfuroon a ngeen di weddi bi ayaati lay ci alquran yàlla wa antum te yéen tashhaduuna yéen a ngi janoog téere bi xam na yàlla la wala ngeen di seede na ci yàlla la jóge yaa alal kitaab li ma lu tax talbisoo na ngeen di jaxase alxaq dëgg bil baatili ci caaxaan wa taktumoo na ngeen di nëbb alxaq dëgg wa antum te yéen taalamoo na ngeen xam ne muy dëgg wa qaalat tontu taifa min alkitab ne aaminu gëm leen bi lazi ci li nga xam ne unzila wàcceef na ko ala lazina amono ci ñu gëm yàlla waja naari ca njël beenig bëccëg ba wa furo waaye na ngeen weddi aaxira oo ci mujjëg bëccëg ba lu tax laallum ndax ñoom rek yërjuwoon nañu dellu si ànd ak yéen ci weddi gi waaye li nu war a gëm mooy wala tuminoo ñun yahud bu nu gëm illa li man ittabaa lu may ku topp ne diinakum seen diine kon waxal ne inal huda nakam njub day hudallaahi moy njubam yàlla rek te loola an yootaa mooy ba joxaat ahadun kenn mislama ootitum la ngeen amoon ci téere yàllaa ko joxaat keneen lii moo leen naqari aw yuhaajukum wala kii xam ca seen téere ba dara di ko weranteeg yéen inda rabbikum fa seen borom qul waxal ne inal fadla naka ak yonent inal fadla naka xam-xam inal fadla naka alal ak may ak xayru ak wér ak aljanna yépp bi yeddillahi ma ngi ci loxo yàlla yootii moo ko yox man yashaaw ku ko neex wallaahu yàlla waa sunu aji yaatul alimun aji xam la yaxtasu yàlla mooy jagale bi rahmati ci yërmaane ma ko man yashaa te li leen li leen yépp rek mooy an yuuta ahadun mislima utitum te nag yàlla moom yaxtasu bi rahmati man yashaa wallaahu yàlla dul fadli mooy borom ngëneel al azim lu daa ji màgg bàyyi na loolu mu ngi ñëw ci jikko moo di matal kóllëre ak ñakk wor yow dangaa néew doole nga ñëw ci kilo tane mu dimbali la nga wor ko doo ko fayaat walla mu dénk la ko nga wor ko ca Eh, mu ne loola dugul jikkoy jullit waaye yahud nag am na ci ñoom ñu mel noonu waaye du ñëpp de am na ci yahud koo xam ne soo ko joxoon benn dërëm boo ko soxlaa jot ci waaye am na koo xam ne soo ko joxoon alal ju bari balaa nga caa jot sekkere nga ko joxoon de waaye balaa nga caa jot da ngeen wax a ba ñëpp dégg leen loolu du ci yahud yi rek ma ngi ci nit ñi le waaye la ci yàlla yi teg nag moo gën a doy waar moo di ne ñuy tuddee ñu baax ñi ñuy tuddee ay boromi xam-xam ñi ñuy tuddee ay saalixuun ñoom ñooy ñi nga xam ne buñ la lebee duñ la fay ñoo gën a ñeme yàlla ci lekk alali jaambur ndax dañoo yaakaar ne ki amul xam-xam boo lekkee alal mit du mujj fenn loolu yahud yi daan wax naan ñi mu ñi mënuñu bind mënuñu jàng kiw ñu ku ko lekkit dara buur ne wa kitaab bokk na ci àllul kitaab nekk na ca man koo xam ne in tamanhu soo ko wóoluloo woon bi qintaarin alal ju bari nga dénk ko ko it yuwaddihi dana ko jox ilayka jëm ci yow boo ko soxlaa waaye wa minhum nekk na ci ñoom man koo xam ne in tamanhu su fekkee ne da nga wóoluloo bi dinaarin benn dinaarit laa yuaddihi ilayka du la ko jox mukk mukk mukk illa ma dumta alayhi man xanaa lu may nga taxaw ci guddeeg bëccëg ba ñëpp a dégg leen zalika loolu lu ko waral bi annahum ñoom xaaloo wax nañ ne laysa na waruñu kat sabilun benn bakkaar fil ummiyina ci juhalaawu yeeg ñi xamut ñooñu lekk seen alal amut bakkaar wa na ñu ngay wax nag kon alalaay ci yàlla alkasibay narde ku yaakaar loolu yàlla ne ay narde ngay ngay wax oom tañu yàlla mun a xam nañ ko balaa aha kay da ngeen ci am bakkaar man aw faa matal na bi aadi yi ci kóolëre yàlla wa taqaate mu ragal yàlla ki lañu soxla fayna la yàlla mom yuhibbu dana fay almuttaqa ragal yàlla in alladi naka ñi nga xam ne ne yoon ñu ngi jën bi aadi kóllëre yàlla way maani nihim ak seeni ko leer sama nañ jëk qalilan gu tuuti te moy adina àddina ka ñooñu la khalaq lahum fil akhirah amuñ benn ciir ci al akhirah wala yukallimuhum allah yàlla du wax ak ñom sax wala yanduru ilayhim du xol ci seen bor sax yowmal qiyamah wala yuzakkihim du nangu seen ak sel sax kon fuñ jëm wala um ñeen leen kon adabun bugal alimun mu métti bàyyeegul alul kitaab ak yahud ma ngi ci seen fen yi ak itam seen duudal yi yahud yi ku ciy jàng tawraat te tawraat dafa indi ci e, turu bi yu bari leen ji itam noonu buñ jàngee ba ñëw ci turu yonent bi ni mu ko tuddee ci seen téere ñoom dañuy daldi lem seenu làmmiñ ba duñu ko tudd walla ñu tëb baat ba walla ñu teg ci lu ci bokkul ndax bañ koo waxee ni ko téere ba waxee walla ñu yokk ci lu ci bokkul yàlla nag ne wa inna minhum nekk na ci ahlul kitaab la fariqan kuré boo xam ne yel woon a dañuy lem na alsinatum seeni làmmiñ bil kitaabi ci téere bi li tax sa boobu ndax baat boobu ñu taqalu làmmiñ dugal ko ca te bokku ca ndax nga joortu ko ne minal kitaabi ci téere bi la wa maa huwa déet loola minal kitaabi mu bokk ci tawraat ak linjiil wa yaquluuna ñi ngay wax naan huwa lii min indillahi mu ngi bàyyi ko fa yàlla wa maa huwa déet loolu min indillahi bàyyi ko fa yàlla wa yaquluuna ñi ngay wax alallaahi waral yàlla alkadiba ay nar wa hum te ñoom yaalamuun ñu xam ne loola ay fen la bàyyi na loolu waaye bàyyeegul alkitaab moo jiite woon nasaraan nasaraani najraan ya kuñ naan ku naan rafi al qurazi moo leen jiite woon ñu ganase woon yonent bi tàmbali saar wi yépp ñuy waxante ak ñoom alquran di leen tontu yonent bi dalal leen ñoom nasaraan yooyu ci jàkkam ja mu dalal leen ci jàkk ja di leen fa jox lekk ak naan di ñëw di discuter ak ñoom léegi nag Raafiya ne yonent bi yow nag léegi li nga ñu wax bari na dégg nañ ko ñun daal li dégg ci li nga wax mooy dangaa bëgg nag léegi nu jaamu la def la nga nekk yàlla loolu nga bëgg nag yonent bi ne maa ngi muslu yàlla ci di wax loola maa ngi muslu yàlla ci ñu jaamu ku yàlla maa ngi muslu yàlla ci fekk loolu ci sama làmmiñ lay jóge man yónni wuñ ma ngir loolu man liñ ma yónni kay mooy jaamu yàlla rek alquran dal di wàcc dëggal ku ne maakaana ndax xam nga ne yellut li basharin ñeel mbindeef kay an yooti yowoo jox ko laahu yàlla alkitaab ab téere wal xukma akub atte wa nubuwata ak ak yóninta su ma yaquul mu wax li naa ñeel nit ñi ni koonoo nekk leen ibaadan di jaam li ñeel ma min dooni laay bay yàlla xam nga ne day ku yàlla yónni ba jox la téere lu yàlla ci moom mu toog naan ñëw leen nekk samay jaam te bañ nekk jaamu yàlla walakin waaye li muy wax kay mooy koon a nekk leen rabbaani yi na di ko jóg yàlla kalimatu rabbaani baat bu sori la koonu rabbaani yiin euh, loola ñun ñun ñëpp mënuñoo nekk rabbaani mën nañoo nekk ibadullah mën naa sax ñu nekk ay zuhaat ak i jaamu yàlla ak ñu dëddu àddina waaye nekk rëbbaani loolu moom dafa foor ndax nit kii bu nekkee rëbbaani dafay nekk nit koo xam ne su xoolee yàlla lay gis su dégloo yàlla lay dégg suy dox yàlla lay àndal suy téye yàlla lay doon jeex googu mu jeex ba ba nga xam ne xëyroo xëyriyatu jeex na ci xelam ak xalaatam ak xaataram kooku mooy nekk rabbaani yi te loolu nit du ci yàgg moo tax yàlla ne walakin kunu rabbaani yii na nga nekk rabbaani ba looy wax dëgg lay doon doo ci set lu mooy yàlla bi maa kuntum ci li ngeen nekk tuallimuna di xamal ko alkitaaba téere bi bu maa kuntum li ngeen nekk tadrusuuna di ko jàngit na nekk rek ngir yàlla wala yaamurukum du digal leen anta taxisoo ngeen di jàpp mukk almalaayika ma ngi door a tontu nag ci liñ ko waxoon du leen digal mu ngeen jël malaaka yi wa nabi yi nag yonente yi arbaaban ñu di yàlla su fekkee lool am na ayaamurukum